xam nga jamono. Mm. dara raw la ci réew mi macha allah. mais dafa am lu yëngatu woon fan yee showbiz bi yëngatu. waaw yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy bàyyi xel yaakaar naa muy ngaaka blende ak lu bëri seen coow li. dëgg la bi fii nii baaba yaa kii ndig ndakaaru yaa baaba yaa tooñ nangam sangam. dëgg la coow loolu sëñ bi. alhamdulilah macha allah waaw ci baatin. <laughs> macha allah ci baatin. waaw euh, bañ ko xoolee. waaw euh, foofu xale la. foofu xale la. te la musique te l'art de combiner les sons. d'une manière agréable à l'oreille. waaw waaw. la musique est composée de sept noms de noms et de quatre interlignes. quatre lignes et, noms de notes et quatre interlignes. Les sept de notes, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Wow. Oh. Les quatre interlignes, c'est Fa, La, Do, Mi. hip hop. wow Les femmes, ci game gymnastique intellectuelle. gymnastique intellectuelle. wow C'est la mhm. gymnastique <laughs> sëñ yaa ngi sama géem jamono ji man mii nii. te boo xoolee. waaw euh, classe. classe mu bokk ci hip hop. waaw hip hop dance euh, soul. waaw rap. Mhm. hardcore. Mhm. ci denc sax. waaw dance ci hip hop la bokk waaye boo xoolee classe ci biir hip hop la bokk. Mhm. Euh, classe nag dafa exemple am na loo xam ne maanaam boo bëggee fël. da ngay sànni pic da ngay sànni pic. waaw bien alamin ah, macha allah. boobu ngay sànni. mooy waral kii tontu mu def buzz te boo xoolee man dama gis ne. li am nii yëpp. waaw hip moo gagné. hip hop moo gagné. parce que am na benn promoteur bu investir si ñoom. waaw dèjà kon li ñu doon ut ñoom am nañ ko. waaw gis nga hip hop dafa tolloon foo xam ne dafa am fu ko gars yi yóbbu woon. waaw Daara ji Fada Fred sama xarit. Uh-huh. Euh, les les les PBS. waaw mais macha allah xale yi. ñooñu jar a sargal lañ. parce que gis nga yi ñu commencé def amoon na fi nag. le mm. le cas de Rapadio. waaw Rapadio ba muy sànni pic. yaa ngi euh, daara ji. waaw di wax bu moo jooyloo yaa ngi fàtte loolu. Mm-hmm. ba Rapadio di sànni ñoom kii daal bi son di génn ci Rapadio di sànni ay ay pigam. waaw ak ay li nga xam ne mooy ay ay ay éco waaw foofu yëpp ay jamono. waaw na neexoon na. neexoon na loolu dund hip hop. gém bi neexoon na da nga ne sëriñ bi nag mu ne jamono jooju parce que ñoo ngi woon ci ji. waaw te boo xoolee tamit euh, ni ni affaire bi demee. Euh, musique il faut ñuy def ni pour mu man di jaay. Mhm. parce que la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. manam dañuy jaay gem bi. parce que ñeppay di intéressé parce que musique si nop. waaw lan la ko wax ki lan la ko wax. Euh, l'art de combiner les sons. ya ngi wax ay pic ngi mu ngi neex nit ñi. nit ñi enjoy diko ba ay jaay dugg ci kon combiner les sons d'une manière agréable alors. mam Savon gis nañ mom ak Cobra ci très bien kon kon buzz dafa am la dafa am lo té xalé yi ñu commencé def ñu ngi roy sen mag Freddy ñom dara ji PBS Dar euh, ñu ñëpp té machallah lool tamit ñoom it euh, marqué nañ Wow. c'est bon. nit da ngay marqué sa empreinte. dafa ñëw fekk sëriñ. waaw xam ngay tok rek man na li man na li waaw. les gens qui innovent. waaw parce que vraiment Lamine. waaw doo ñëw fi rek toog. naa mën naa faj rab mën naa faj. ndox mën naa faj nangam sangam. macha allah tey boo xoolee fu sëriñ tolloon ay jamono. Mhm. ñëpp taxaw di xas sëriñ est-ce que dégg di nga loolu. déedéet bëreetul parce que nit ñi gëm nañ na léegi xam.